soxna si. delloo ziar. tur bi bi nga déggee information Vieux bi nan la la def. waaw daf ma jëlee kaw parce que man dañ ma woo di ma la laaj ne ma annivier ma ne Vieux nelaw ñu ne ma day nelaw wala dafa génn ma ne déedéet parce que mu ngi nelaw après si la ab sa wàcce di la seet mu ne da génn ñu mu woo ma waat ma ne ma annivier ma ne ko Vieux muy fii. après mu ne ma man ne dañ maa woo léegi ne ma vie dafa def choc mu ne ko choc déedéet vie de mu ngi néegam te léegi la génn aha mu jële ma kaw trop doon lu ñu métti nag. Mhm. mais loolu biñ la koy informé ban ban situation la la fekk quoi. ma fekk maa ngi ndékki maa ngi ndékki après ñu wax ma ko mu tiit après ab sa wàcc ñu xam ni yaa ngi si jàmm. beneen yoon booy conseil ñi nga xam ne dañuy jël photo jàmbur di ko publier ci internet bi nan dañoo gaañu te te gaañuwuñu yow ban ban ban conseil nga leen ah, man su doon moom nañ ko bàyyi parce que nit kenn du ko yéene dee nit moom loo ko loo ko bañ bañ bañ xanaa doo ko yéene dee nag wax dëgg fa ne yàlla su doon maa moom daal nañ ko bàyyi te bàyyi di rey doomu jàmbur te nit ki deewul waaw parce que jour boobu noonu ñun ñii ñëpp tiit nañ xamul nu ñuy def. fekk na dañoo fanaanoo yow rek nekk si jàmm waaye fekkoo da génn day fekk kër gi fees dell ñu ànd di yuuxu. salaama mi waaw. ah ñu sa kaw sa kanam rek fi ñu bëgg a egg yàlla eggali leen fa ñu leen di sant di leen gërëm li ngeen def rafet na trop parce que tamit nit ñi seen xel la na moon na ñu jaaxle woon tamit bari na ngeen andi leen leeral tamit day baax. merci beaucoup. ok maa ngi lay nuyu. waaw maa lay fay. Euh, tante ci Vieux Top. man tàntam laa. waaw tàntam laa. bi nga yëgee keroog xew-xew bi nga xamante ne jot naa xew ñu ñu tàggee ko def ko ci internet bi yëpp ban yëg-yëg nga ci am. dama tiit yii dama tiit dama dégg rek dama ñëw génnoon nag ñëw rek dégg nit ñi di wax ne. dañoo ne Vieux dafa dafa accident ba kii mën na ko accident la Vieux ngi nii tase nañ léegi léegi léegi ci mbedd bi Vieux kay dara jotu ko may wax nag ah ki ko def nag moom moom li rafetul di ko ñaanal nag bu dee juumte la yàlla na ko ci yàlla musal ba dootu ko defati ah ñun moom ñaanaluñ yàlla léegi bi suñu doom ji dee ndax ku baax la ku am yar la ku respecte nit la macha allah dañ koy ñaanal kay gudd fan. waaye ñaanal lañ ko moom mu dee léegi moom ki ko def nag moom ñu ngi koy baal ñu ngi koy ñaanal yàlla génne ko ci bu mu ko defati loolu rek lañ koy ñaanal bu dee juumte la moom yàlla bu mu ko defati waaye ki daal yéene guñ ko dee naga ni moom dundu daal lañ koy ñaanal ba ci kanam ak kanam ak kanam waa kay jërëjëf yéen tamit ñu baax ngeen jërëjëf. noo tudd. Absa. c'est-à-dire euh, vie vie wax na ma ne bokk nga ci ñi njëkk a gis publication bi ban heure nga ko gis. waaw man bokk naa si ñi ko njëkk a gis parce que ay 7 laa jot premier appel bi sama cousine woo ma ne ma Rock Énergie dafa am mbër bu fa gaañu. ma ne ko ah man ma ko moom vraiment depuis tey suba ba tey maa ngi si réseaux sociaux mais yëgu ma ko léegi dangay xaar vie bu yeewoo ma laaj ko mu ne ma ah ma ne ko après mu raccroché xam naa boobu yëg na ko ñemewu ma ko wax. après si la ma aussi sama meilleur ami mag woowee xam naa gis na gis na sama voix tristuma rek après si la commencé retaan ne ma ab sax ma ne ko wii mu ne ma annivier ma ne ko gisu gën naa ko gis depuis démb mais je pense que mi ngi ci suuf mu ne ma demul entraînement mu ne ko déedéet wóoruma de léegi da ngay xaar si la appel yi ak message yi di ñëw di ñëw ma xam ne lii du jàmm après si laa gisee publication bi man tamit wax ma ko dara ma wàcc ne ko yow vie rek énergie dafa am bu fa gaañu mu ne ma yégaguma ko de ma ne ko ah mu ne waaw man tamit waxuma ko dara si laa yéeg ñëw bugguma aussi sama yaay yéeg ko ma ma calme rek mais quand même tiitu naa si lañ ànd man ak sama yaay di dem si la suñu sama taawu yaay bu woo ko nekkoo dañ ko tàggee vie ma ne waaw naroon naa lañ ko depuis tey suba mais ñemewuma ko woon wax. genre ñemewuma ko parce que. ok yaa ngi gis bii mu ngi toog mu ngi taxaw yaa ngi ko laaj mu tontu la. mais moom dama tiit ba ma wàccee di ko koy laaj sax ñemewuma ko woon xool parce que dama tiit ba tey. moom voilà léegi si laa ko woowaati téléphone ma ne ko il faut nga wax parce que gars yi dina publier ne la da nga dee. mu a ma man aussi loolu laa dégg fekk naa appel yu bëri sama téléphone. ma ne ko donc il faut nga def nga def dara après man si laa génnee ñëw ay midi une heure si la suñu mbokk yi commencé di may woo nag di may woo. ñi di may woo di jooy di may laaj ndax dëgg la ma ne du dëgg si la aussi sama suñu taaw yi nekk Fuuta ñoom tamit si lañ commencé woote ni di yuuxu ñu di jooy si laa leen ne du dëgg de parce que vie mu ngi fii man ba tey sax dama que je peux pas concevoir nit kuy dund ñu ko ñu tàggee ko ak dee nu mu mel voilà mais sant yàlla rek mooy loolu nit moom soo nekkee si àdduna da nga toll foo xam ne il faut nga am obstacle mënul ñàkk mm. mais soo amee ñu la jàppale nga surmonter ko rek alhamdulilah mais ki nga xamante ne tey bokk na doon na soxna jigéen comme yow euh, bokk ci ñi ko moom moo ko njëkk a publier ba ba réseaux sociaux yëpp képp ci nekk jëlaat ko tiitrewaat ko kooku lan nga koy wax. voilà si dugg naa si Facebook am aussi parce que man gëj naa Facebook ëpp na un an presque. dugg naa ma téléchargé waat sama Facebook message ko. message baa ngi fi screen naa ko sax après mu envoyé ma autocollant ma woo ko par messenger mu teg ko chemin après par la soit trois options yi la amoon li moo tax mu publier ko soit daf daf ko jële woon foo far yàlla affaire yi ëpp ko doole wala mu am lu ko métti vie fajee ko mais man daal raison yu mën a nekk gisuma lu tax nit ak noppam nga koy publier yow mu leneen na deewut ngay wax dee na soit amoon na famem kenn ku ko mënoon gis def crise cardiaque wala on ne sait daal voilà loolu moom nekkul solution boo xam ne baax na ak lu mu ko waroon mën a def mënoon na ko fajee ne du du ay publier nit naan dafa dee wala yooyu noonu merci. yaay booy maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. kii kii mooy yaay ci Vieux bi nga yëgee li nga xamante ne wax nañ ko ci Vieux ban yëgee nga ci am ak nan nga ko yëgee. waaw ah, sant yàlla julli ci Seydina Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam kon euh, am nag tiitaange gu rëy rëy rëy rëy ndax jur sa doom di ko am feneen foo koy xaar nga toog rek téléphone yi di sonné ne Vieux Top dafa accidenté de def nañ ko ci. doy na lool lool tubaarakal tiit rek jaaxle nag ah waaye lépp rek ci cant la raf yàlla rafetal na ko ba rafet ah daloon nañ it waaye tiit nañu moom ndax liir bu ndaw sax bu juddu tey nekk sa doom sax suñ la waxee ne dee na métti na asuma ku yem ne wiyetoo ah réew mi xam ko lool nag ah mu metti lool nag sant rek nag lépp nag cant la rek. waaw waaw métti na lool. ñëpp nañ euh, ni mu mel ak yow euh, tey bi ñu bi ñu yëgee euh, affaire bi ñun ñi def ko ñëpp seen xel dañoo dem ci ci yow ba ci moom aussi bi mu ko yëgee xel mi ci yow la dem parce que xamul nan nga ko yégee ak ak boo ko yëgee ci lan la lay fekk. waaw mu metti lool waaye nit ñi sax ñemewuñ ma woo. Mm-hmm. dañuy woo rakkam ji ro oo jabaru càmmiñam ji man maa ngi toog rek. di dégg vie toob vie toob rek ana vie ana vie rek waaye kenn ñemewu ma woo yàlla xam na ko ndax ñëpp xam nañ sama diggante ak vie ñoom macha allah vie am na ay mag am na ay rek waaye vie dafa bokk ci man dafa bokk ci man sama doom la sama xarit la waaye rafet na daal rafet na waaw rafet na. Euh, ki nga xamante ni doom la tey mu mu bindoon loolu ci vie euh, lan nga koy wax. ah ma ñaanal ko yàlla rek lii yàlla bu mu ko dalati ndax bu fekkee ne. topp nañ ko ba gis ko gàcce rek la ci amee te noonu la daal noon daal laa ko mën a tuddee ndax sopp du def lii waaw noon rek waaye nag di ko ñaanal yàlla nag sama waxu démb rek mooy sama waxu tey bàyyee naa ko ak yàlla daal ndax yàlla moo man lépp bàyyee naa ko ak yàlla. lan waaw mu gën a xam fu muy teg tànkam. ndax tubaarakàlla macha allah doom joo xam ne la duma rek maa koo bëgg. wii ku ko gis da koy bëgg macha allah. mu gën a xam fu muy teg tànkam rek jéem a gën it defaraat toogaayam waa loolu rek laa koy ñaanal nag ñaanal ko gudd fan ñaanal ko wér yàlla may ko sutura àdduna ak bu àllaxera loolu rek laa koy ñaanal waaw kay yéen it jërëjëf kontaan naa ci yéen yéen it yàlla leen yàlla taxaw dimbale leen bàyyi leen ak seen liggéey ngeen yokk ba yëkk barke sëñ Babacar sama sëriñ kontaan